Marie dafay joxe sax exemple di ñu xamle ne li nga xam ne mooy xel mu sell mi soo ko jotee nekkul rekk da ngay toog ne yàcc ne yasar dangay yëngu dem fekki say moroom boobule xel mu sell mi Mariama mu sell mi jot moo tax ba mu dem nag tase ak yeneen i doomu aadama yi. Agir, c'est pour bouger, c'est pour aller vers les autres. qui a poussé la Vierge Marie à se mettre en chemin pour la mission à la rencontre des autres ginnaaw bi lekk mes nag ñu daal di amal ci wet gi rek loole di cérémonie officielle ga amoon na nag ci teewaayu kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi teewaloon gouvernement bu Sénégal ak kilifa diine ñi nekk ak féete ci wàllug jàng gi jàppale nag ne loole tax na jëwrin bi ñu denk lépp lu jëm ci wàllug biir réew mi di Abdoulaye Antoine Félix Diome daal di fa yëkk ay kàddu xam ne nag ni jamono ji rek ndaw Sénégal dañu war a mën a gën a xoolaat seenu ko taxawaay waaye tamit dox ci lépp loo xamante ne moom mooy saxal jàmm jamono ji ci réew mi ñu teewlu ay kàddoom l'amour que nous inspire Marie, ainsi que l'amour entre fidèles, entre membres d'une même famille ou d'un même pays, constitue le fondement d'une nation. Pour préserver notre tissu social, il est impératif que nous réaffirmions ces valeurs essentielles. Les jeunes d'aujourd'hui, on n'en disconvient point, sont les leaders de demain. Et il est de notre devoir de leur transmettre les valeurs de paix, de tolérance et de respect qui sont si essentielles pour construire une société harmonieuse. Nous sommes tous témoins des défis auxquels les jeunes sont confrontés dans notre société moderne. Ils font face à des pressions et à des tentations qui peuvent les éloigner de la voie de la paix et de la sagesse. C'est pourquoi il est crucial de les guider de les encourager et de leur montrer un exemple de vie basé sur l'amour jël kàddu gi jébbal ko nag jamono ji rek kilifay jàngu ji di monseigneur Benjamin Ndiaye moom nag àddu ci tension politique wala bokk lépp loo xamante ne ni moom moo ñeel xew-xew yi am ci jamono ji moom nag woon na tamit mboolem kilifa yi nga xam ne rek ñoom ñoo ŋànk bi leeg secteur ñu xoolaat bu baax a baax nag lépp loo xam ne moom mooy kàddu yi ñu fay yëkkati ak anam yi nga xam ne rek noonu la ñu koy yëkkate ñu teewlu ay kàddoom ci taxawaayu li di ministère de l'intérieur. Monsieur le ministre le ministre jàmm dañu koy yéenante sa suñuy nuyoonte bés bu yàlla sàkk jàmm nag du leneen lu dul rekk ndëgër ko société moom moo ñuy jàngal dégg-dégg waaye tamit joxe cër suñu bopp jox ko ñeneen ñi ci lekkoolu ko Marie ak Elisabeth loole rekk lañ ñu fay jàngal mu mel ni ab discipline la fa. tey jii nag mën naa leen wax rek ne nekkul ne bu ñu waxee ñépp dégguñu que loolu mooy firndeel ne ñun ñooy wax dëgg wala bokk que dañu mën wax rek ñun ñoo wax dëgg dëgg nag li tax ñu am ko moom mooy ñuy génne ay kàddu yoo xamante ne nii daañu saxal jàmm te mu mën a wéy. plus d'habilité ou d'éloquence ñu fàttali rek ne euh, nege ni démb nag waxtaan yi bokkoon na ci li nga xam ne seet woon nañ ko ci euh, messe des marcheurs nege ni démb euh, kii di l'abbé Alfred Waly Sarr mi jiite nag bi lekk messe la mu xam ne daal moom mooy jàmm moom moo gën ci réew amul leneen daal lu gën jàmm ba nag démb ba muy waxtaan ak ndaw yi loolu rek la daal di jiital xibaar la boo xam ne nañu ko gën a yaatal fi lekk suñu yeneen jotaay laata loolu mbokk yi ñu waxtaanee lekk marcheur xam ngeen ne gën gaa néew nag nekkoon nañ ñaar fukki junni yoo xamante ne rek ñoom ñoo wute wéetal si bile ak 135e édition bu pèlerinage euh, marial bile donte sax jamono ji naka tàngoor wi métti woon na lool terewul rek euh, dara euh, ndaw yi ñu daal di rek fexe ba yegg si fi nga xam ne moom mooy wàllug Popenguine loole ci pas-pas bu mot sëkk boo xamante ne rek Kajoor Cissé moom moo ñu koy dégtal. ay fidèles yu agsi ak cawarte gu mat sëkk ci piewu Notre-Dame de la Délivrande bu Popenguine moo ne dey lu toll ci cinquante deux kilomètres la ñu jógee dox lu ci mel ni ñi nga xam ne ñoo jógee dakaar ñi jógee Thiès dox lu toll ci quarante kilomètres naka noonu ñi jógee Mbour ñi jógee Kaolack ak Tambacounda ñoom it ñu dox lu toll ci quarante kilomètres waaye nag yaakaar bi ñu am ci Mariama mu sell mi tax na ba ñu fexe. ba ak si fii ci Popenguine. marché bi si woon na mais def nañ ñu doxee ñëw fii. donte sax temps bi yombuloon dara tàngoor bi métti woon lool itam waaye teewul marcheurs yi ñoom seeni motivation ñu ngi dem jëli ko ca Mariama mu sell mi. ñun Saloum la ñu jógee te ku ne Saloum dangay waxtaan woon donc fii pour ñun dañoo ñëw rek gis ngëm ak yaatu. Vu l'ambiance et les classes qui nous attendent ici, nous avons trouvé les forces nécessaires avec l'aide Notre-Dame du Sacré-Cœur, Notre-Dame de la Délivrance pour y arriver. lu toll ci dix-huit mille deux cents marcheurs ñoom ñoo bàyyeekoo Dakar. bokk na ci ñi jóge Ziguinchor lu toll ci 3000 ñu bàyyi ko Thiès ñi jóge Mbour ñu xayma leen ci 2500 jeunes ñi jóge ci diocèse bu Tambacounda naka noonu Kaolack ñoom it ñu xayma leen ci 2000 ñoom ñëpp nag kenn ku ne nga indaale say projet say jafe-jafe naka noonu say bëgg-bëgg lépp nga fas ko yéene dénk Mariama mu sell mi ngir mu yeggale ko ci doomam bi. Yeesu ñu wéy ci xibaar yi wax ci leneen mbokk yi loole nag dafay ñeel sanctuaire marial bu bees bile nekk nag tey ji loo xamante ne taaram jéggi na dayoo lool donte sax noppeeguñu ci wàllu ko liggéey bi li ñu ci seetlu rek moom mooy nag xar kanam bu yees la daal di am bu rafet lool ci wàllu ko liggéey bi biir la wala biti fépp foo daal di toll rek da ngay seen li nga xam ne moom mooy taar bi ak dayoo ga mu am ñu lu na taalam te ñëw. bindam yaatu taaru lool di melax foo mën ci toll boo ko tiimee sanctuaire marial bu Popenguine bi li daanaka gis-gis bi du doy fenn ni mu feesi taaru lool boo koy xool sax doo doyal noone la daldi di yaatoo te yomb lool te gi tànk ci wet gi lu ko soriwul lool lii di village des marcheurs ak i tantam taaru lool la muy sax bërëb boo xamante ne ni ndajeek jàmm ko sabab file lépp rek ngëneel la bu ñu xaymaa dayoom superficie baa ngi toll ci 20 800 mètres carrés yi sanctuaire marial bu bees bile donte sax taaru na lool la loole doyul ndaxte bu ñu koy xayma 30 500 places la daal di yor lu ni mel am rek ñeent ci pàcc yoo xamante ne ni bokk na ci ab système acoustique bu mucc ayib loole ngir rek ña koy couvrir bile ko projet tamit fësal rek ay mbir yoo xam ne daanaka tax na xel bàyyi ci moom gët. ginnaaw njeextalu liggéey bi dañu ci mën a gis sax li nga xam ne ab cœur majestueux la ngir daal di fàttali rek bëgg-bëgg taalibe yi li leen luñ ci mën a gis bokk na ci rek poterie yi nga xamante ne ñu ngi toll ci fukk ak ñaar fas yéene fa daje loole di firndeel la fukk ak ñaari apotariya bu yeesu waaye tamit bu jàngu catholique. architecture bi tamit ni mu taaroo dana am ab ak benn croix buy fàttali rek Krista mi yéeg ci kaw asamaan loole di bépp taalibe la muy wër. leneen sax lu ñu ci mën a wax ne génne firnde bokk na ci rek charpente métallique ba mu am ànd ci ak panneau photovoltaïque ci loole sax la ñuy desandil xam ngeen nag ni mbooleem taalibe kerceen yi nga xam ne tey jii jànge nañu ci bërëb bi lekk mes ñoom joxe nañu nag seenub gis-gis ci coow lu ni mel nañu ko gisee ak nag lépp loo xamante rek moom la ñu dund ci bi lekk mes ñoom ñooñee xamal nañu ko ñu teewlu leen. Euh, nombre bi quoi accueillir na nombre bu bari par rapport ak sanctuaire bu ñu njëkkoon a am euh, bi nii moo ëpp ay place gis nañ ci suñu bopp tamit di ñaan aussi Euh, au président mu wéyal liggéey yi tamit après pèlerinage bi. lii day tal xelu Sénégalais yëpp lii day won tamit aussi tamit Sénégalais yi ñun ñëpp benn lañ parce que suñuy bàjjen fii la dëgg ñu jàmm rek moo fi nekk te jàmm rek moo fi war a nekk aussi. bërëb bu bees bi ñu ngi remercier le président de la république moom mi tax ñu am sanctuaire bi quels que soient les clivages politiques nit tam su defee lu baax dañ koy reconnaître. neex na ci xol dafa neex trop ci xol na loolo looloo ñu sant yàlla bu baax a baax. heure bi de vraiment pareegul mais macha allah moom vraiment yàlla na pare gërëm yàlla màggal yàlla tagas yàlla moom mi def xam-xamam ak mën-mënam ci xelu nit ak ci loxo nit mu man a liggéey lii bu ñu gërëmee yàlla moom mi nga xam ne may nañu teew fii parce que këru yàlla ñun ñëpp ñoo ci tolloo muy baadoo la muy borom alal ak lépp li nga mën a doon sa sa sa làkk ak lépp bu ñëwee ba dugg fii ñun ñëpp ñoo ci tolloo. bu ñu ci jógee ñu waxtaanee nag li nga xam ne moom moo jëm ci ndaw yi yëngu rek ci wàllug ndimbal gi bokk na ci nag te ji association boobee ñu duppee soppey Mariama ñoom ñooñu nag. dañu rek manko daal di eh, dimbali ndaw yi nga xam ne nag ñoom ñoo fi ñëw tey ji ci wàllug eh, lekk ak yeneen yu mu mënti doon ñoom ñooñu sax yëkki nañ ay kàddu ci suñuy eh, mikro ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo yebeek woon na dem ca terrain ba. Donc nous remercions, um, euh, surtout la communauté musulmane. ñi di ñëw boppati dama bëri ñoo xam ne dañuy ñëw boppati ils sont économiques ñi pas sax dañuy am yow dañ ñu ne baa pas ñu jéem euh, am am suñu koom ak lu ñu nit ñi di dimbalee si biir tamit ñu boole ko lu ñu mën a def rek maanaam pour nit ñi ku ñëw rek maanaam nga mën a coob donte mënuñu bëggal ñëpp nag ñëpp ñëpp ñëpp mais comme ñi ñu xaw a jege ak parce que def nañ ko yóbbu nañ ko euh, def démb am nañu affaire toog yóbbu ko ba euh, jox ñett ñu lekk suuf mu nekk kontaan nañ si lii nag mooy deuxième édition ñaan am doole euh, képp ku bokk si groupe bi rek yàlla na la yàlla may nga dem ba sa wërsëg lépp fi ñu koy ndarkeppe bokkoon na ci nag li nga xam ne moom la ñu duppee dévotion à Marie bokk na ci nag li nga xamante ne ni euh, mbir la moo xam ne bépp chrétien da nga ko war a daal di am loole bokk na nag ci li nga xamante ne ni suñuy sujet la ñu daal di ko tënk tey jii ci wàllug euh, bés bi. loole euh, tax na nag Kajoor Cissé bi nga xam ne moom lañ ci fas yéene àndal doxantu ba foofee ci booru grotte ba ngir nag daje ci ak ñenn ci ndaw yoo xamante ne ñoom ñooñee ñu ngi koy dund bu baax waaye tamit jot nañu ci rek fësal seen gis-gis reportage. ci kanamu grotte bi jàkkaarloo ak vierge Marie bi seen chapelet ci seen loxo fidèle pèlerin catholique di am ab intimité bu am solo ci seen diggante ak mama Marie loolu ci tek ak tey. Sophie Préra bokk ci paroisse Saint-Paul bu Grand-Yoff ak Jean-Pierre Guèye nekk ci paroisse épiphanée du Seigneur de Nianing ñoom ñaar ñëpp nag di am diggante bu doy waar ak mama Marie. yeeg samay ñaan yegg si yàlla il faut ma jaar si vierge moom mi ko ëmb moom mi ñu jox ki ñu ki ñu musal. suñu diggante ak mama Marie pour ñu expliquer ko day métti parce que daa nekk mbëggeel boo xamante ne euh, amul fu mu yem daal mama Marie ndey ju sell ji euh, yaayu Yeesu lépp la boo ñëw. Kajoor Cissé cant ak ngërëm na la mu ngi wok mbokk yi nag boobu lekk élément rek moom mooy ndar képp bile jotaayu xibaar bu mujj ci bile 135e édition bu pèlerinage marial bu Popenguine euh, ñu euh, teewlu rek li nga xam ne nag moom mooy ab pèlerinage bu am solo ci ndaw yi waaye tamit ci pàcc yëpp di yaakaar rek ne nag dinañu ko teewewaat déwén ci ak jàmm mu doon 136e édition euh, bile mbokk yi nag ci li nu mel rek la ko fas yéene ndar képp ci dund bu métti bi li nga xamante ne ni nekk di fi xew ñu seetlu ci nag pèlerinage euh, bu euh, neex lool ci wàllu ko ndaw yi waaye tamit pèlerinage euh, bu bëri pas-pas noonu rek la ñuy jaar daal di bural bi la jotaayu xibaar ñu joxante dig daje rek ci yeneen édition lay doon lu mooy loolu itam mbokk yi rek bàyyi leen ak Mariama Musalla mi rek mu wéy di wasaare ay grâce am ci yenn jàngin jëf